maka yaa nu yem uma jéema kañ te bàkku Seex Abdul makaarimul axlaaqi maka yaa nu yem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet jikko paas dem paas fa dara ak ñoo xam ni dañuy am njaboot te seen doole bariwul léeg-léeg nu ñu ñëw wax la ko nga yëkkati dara jox leen loo xam loo xam ne dañ ci mën a am dépasse juróomi fan walla fukk keneen it ñëw def noonu keneen ñëw andi ordonnance boo xam ne da caa bëgg a faju walla mu di faj ak njabootam nga def ca dara waaw léegi yéen ñii liggéey fii ba loola lépp man faa jóge li ma wax lii lépp man caa jóge yéen ñi ko liggéey lu ngeen yaakaar yéen seen bopp ngeen ko defal am ngeen ne loolu fàww sunu borom fay leen ci Sëriñ Tuba loolu rekk la doon jàngale jàngal nit ñi liggéey liggéey bi ca lañ mën a defe loo xam ni dañ ci am ngërëmul yàlla fi mu ne lii ngeen def lii mooy li ma leen wax mbay dana ci génn moo xam ne buñ ko jaayee xaalis ci génn xaalis bi ci génne mooy def lii ma leen wax lépp te seen loola te loola kat ci seen i taxawaay la jóge am koo xam ni day amul lëf ci poosam ñëw yëkkati ko jox la ko nga boole ko ci lii ngay defal ñooñi soxla waaye ñooñu li ñuy def lu mu doon du liggéeyal yàlla Sëriñ tubaa loolu rek la doon jàngale jàngal nit ñi liggéey ak joxe addiye rek addiye ji lii ma la wax rek ci lay yëngu ak loo xam ni yow miñ ko jox da nga ci mën a barkeelu ak sa njaboot ak koo xam ne dafa ñëw bokk ci ndax koo gis lii ma wax di daje ci moom dana joxe loo xam ne ku ko togg xaaj ba waa kër ga duñ ko lekk ñeneen ñeneen ñuy jóge feneen jaar fa wala ñu yend si fa ñoom ñoo koy xéwloo loolu lépp addiya ak liggéey bu mel nii moo koy def man fi mu nekk nii da daa ngeen dégg ne Serigne Touba da daan teg kaamil yi ci kaw lalam pompe ko ak laj koloñ moom Serigne bi mu tëdd ci suuf loolu lépp sëriñ Touba daf ko doon jàngale rek ngir bëgg nit ñi di def lu baax man fi mu nekk nii bala maa xëy jàng li may njëkk a def mooy sama kaamil yi yi may jàngee ak xasida yi may jànge moom laay njëkk a laj koloñ sama moom lay téye téere yi ngir bëgg lépp saf laj koloñ ma bu ko defee nag moo dootoo ñemee fab parfum bi pomp ko ci sama bopp loolu li tax ma di ko def dama koo jàng rek ci sëñ Tuubaa moo tax sëriñ Tuubaa yooyu mu daan def yëpp da ko doon jàngale ngir bëgg nit ñi di def lu baax rek koo xam ne kii nag liy daje ci sëriñ si dañ di ko tasaare. daje gi ñuy daje ci moom. daje gi ñuy daje ci moom. daf laa metti daf laa metti. Hmm. ba nga bëgg koo yàq. ba nga bëgg koo yàq. di ko tudd neneen. di la ngay wut. ba nga jàpp ne boo ko amee. ba ko amee. da mën a yàq loolu. yàlla sunu borom moom du la ci farle. ba àdduna sosoo ba léegi. ñi yàq lu baax suñu borom musul leen a farle ndax yéen a ngi dégg li may wax bu baax te di ko xam boole ci koo xam ni dangaa yéene yàq lu baax yaag ña la cay dimbali du ngeen ko man te yéene jë te yéene yi dana dal seen ndodd te àdduna yàggul paxa ngi nii jege lool yéene jooju day ko yóbbaale sam pax da ko gis te da ko rëccu àdduna ji day yàggul de jërul yéene wala ngay fexe loo xam ni day tege sam ndodd bu ëllëgee nga yóbbaale ko ci sa bàmmeel nii ngeen di def xoolal tool bii niñ ko bayee ba mu set rek luñ fi bay dana nangu ah, ah. ndax set na bu nangoo ñu jaay ko def ko xaalis di ko def nii ma la wax koo xam ne am na njaboot te amul doole ñëw ci sa wet wax ak ndax liñ bëgg lépp kat doo ko man waaye danga nga def dara loo xam ni kooka dana ko yóbbu dundal ci ak njabootam juróomi fan wala fukk jàkk yi ñi koy tabax léeg-léeg mu tag te léeg mu tag te ñëw wax la ko wax la ko. nga barkeeloo ca ca dara. ak ñii ma la wax. ñuy tukki ba Ndar te lañ fay wuti. te ñoom kat lañ fay wuti. mooy seeti. ak bokki jullit yi. ku faatu ñu war a dem ca sarax sa wala ku faatuwul sax seen mbokk ñu dem seeti ko nuyu ko saafoon teg moom lan ko jox ca la paas dem dikk te da fa bàyyi dara seet leen loolu te loolu lépp ci seen liggéey bii rekk moom la sababoo la nga leen di jox ci seen liggéey bii la sababoo ñiy joxe addiya li ñuy jële ci seen poos di ko joxe loola lépp ci addiya yooyu la sababoo kon nag nangeen xam ni loolu mooy liggéey bi def loo xam ni jaami yàlla yi ak néegi yàlla yi dana dem ci ñoom loolu kay kuy wut ngërëm ci yàlla xam nga ne loolu kat mooy may ngërëmul yàlla kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xam ngeen ne seen coono yi yëpp yi ngeen def ak naaj week ak lépp ngir bëgg fii set ngir ngir man fee bay xam ngeen ne loolu dara la de dara la de te nag bisam dana ñëw jërë ngeen ngi leen di ñaanal mi ngi leen di ñaanal nag yàlla sàmm leen def leen ay mag defal leen ay xéewal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa barke borom Touba barke El Hadj Fallou barke gaa yu baax yëpp amin amin allah dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame murid jaab tiijaan ña ngeen fay dajaloo ñam yee jëlaa ñoo day dagan tey tegaloom dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bukkun fataaju ñam du ko xam Seex Abdul Karim Sëriñ Abdul Karim Seex Abdul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal axlaaq delloo na Seex Bamba ba toog ca dëkk ba am teraanga te lool ngir barke ba delloo na Seex Bamba ba toog ca dëkk ba am teraanga te lool ngir barke ba rafet mu doon ku ñi tarbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku man na def kenn aayiwul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku man na def kenn aayiwul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer mooy waaja daayor waaja daayor paaka maa mu yor yatam batin ba këlum ca raxas xelam ne ko jaajëf sa xabdul karim ne ko jaajëf te ne ko jaaraama waay doomi sëriñ fallu bakke mat na waay demul dikkul tawaaji jaxle seeti ko sabu fa bayi ko gindi ku ko di wër ci àll bi jaxay teraangaam boole ñi mi dunal deful daraam sëriñ abdul karim ku dem këram ba gis na muy defe ganam waxam ja day rafet te day dëppook jëfam day mu fekk waaf lu baax doko mane yërmaani jim am ci mi neefi lay wane teggin ya mat nga jox ko loo xam ne dana mat dépasse juróomi fan wala fukki fan mu dem moroomam ñëw def ko léeg-léeg nee na léeg nit ñëw ne man dama bëggoon dem ba Louga wala Tamba te la ko yóbbu luga mooy doxi ak bokk wala mbokkam wàcc mu war a dem sarax sa nga xam nga jox ko loo xam dana ci mën a dem paas dellu si bàyyi fa dara dégg nga loolu lépp moom la sëñ bi doon jàngal taalibe yi rek bëgg liggéey yi ndax fi mu ne lii ngeen def ci Touba Bogo bay foofu ba mu set bu ñu fa jiyee dara mu nangu ñu jaay ko def ko xaalis wala gis nga Adama seen li ma jox nii léegi nee na loolu dong la ñuy defee lii ma leen wax loolu day lu ko gën a baax am na fenn amul fenn ko am ordonnance nga xam ne ordonnance boobu bi mu am da ko war a faj. mu ñëw wax la ko. nga def ca dara te loolu lépp. te loolu lépp. ci liggéey bi ngeen liggéey. te loolu lépp ci liggéey bi ngeen liggéey. ak addi yi ngeen di joxe. ci lañ ci lañ koy defaat. mu jëm ci jaam yi rek. kooku. dem gi muy dem ci sëriñ si. ku metti sa xol. ba nga bëgg koo yàq. di ko waxee neneen. di ko waxee neneen. yàlla du la far de. yàlla du la far la ngay la nga war a am. la nga war a am. ba mën caa def ak yàq. ba mën caa def ak yàq. yàlla du ci ànd ak yow. ña lay jàppale. ña lay jàppale. ci seen yéene. ñooñu itam yàlla du leen far mukk. te yéeney soxla. yéeney soxor ga. ak yàq ga. ak yàq ga. dana ne ci seen ndodd te bàmmeel li ngi nii jege lool te boo cay dem da nga ko yóbbale te boo ci duggee day ci sam ndodd yàqu lu baax rek newal ci da nga ko rëccu de moo tax yéen lii ngeen di def muy dem ci jaam yi ah, sëñ Tuubaa lim ñu jàngal day won nu ko dem leen ci daara yi bay yi bu ngeen bayee joxe ko ñu séddale leen ku ci jaam yi ak ku ci am dara ci sa poos génn ci joxe ci addiye loolu lépp dem ci jaam ñi liggéey baa ngóog loolu dal yéen ñiy def nii am ngeen sens bu rëy rëy